www.sangatv.com. Euh, jàngeen jëf ci ànd beeg télévision Future Média xibaaru digg bëccëg bi ponk yi ca gën a fës li nga xamante ni moom mooy kon laissez-passer yi juratina euh, njombe coow li mu mel ni nag euh, noppeegul bu weesoo loolu mu jàpp na nag am na kon lu tàng loo xamante ne doxoon na ci diggante douanier yu Sénégal ak ñi nga xamante ni ña nga fekk baax ca Guinée Bissau ca frontière boobee nga xamante ne nag kon fa yëf ya amee di ñanaaw nekk ca département bu Vélingara di ak frontière bu Guinée toll na rek ci ñeenti kilomètres ñàkk déggoo bu amoon ci seen biir ñoom ñooñee nag jóge woon ci Guinée Bissau ngir wutali nag euh, Daaka moo indi woon kon coow la ba ñu jot a laale kenn nag ca yi Guinée yooyu ñàkk ci bakkanam autopsie bi nag def nañu ko ba euh, noppi euh, fi mu ne nii dinañ ci jokk ak Moussa Oumar Gueye ci kanam tuuti lay doon njiitu réew mi Macky Sall ma nga ca gànnaar démb ba tey moo am nag ab waxtaan woo xamante ni war na ko sekk ak njiitu réew bu Mauritanie loole nag gannaaw faatuk benn mool bu Sénégal foofee ca Mauritanie Mauritanie di song eh, ñi nga xamante ne kon ñoom ñooy mool yu eh, Sénégal yi foofu daan ca jokk ak Mohamed eh, Diop procès bu Khalifa Sall ma ngay wéy maire bu Ndakaar nag ma ngay wéy moom it di wax rek ay tour yoo xamante ne nee na laale nañu ca caisse d'avance boobee ñu koy tuumaal tey jii nag ña ngay déglu ñi nga xamante ne ay témoins lañu maanaam ñëw doon seede si li nga xamante ne fas nañu ko yéen a amal tey ji mi ñi fare ci ku jëkk gi nag di sàkku ñu amal ay wote yu jaar yoon fii ci Sénégal tey ci lay doon du ñàkk tamit ñu jokkoo ci ak Mamadou Diop de Croix mbokk yi ponk yaa ngi ni daan ci toftal xët yu njëkk yéen i kaay bu ngeen taaxee la tuuti ñu faram-fàccee xibaar yi njombe li ca ñanaaw la xewee nekk ca département bu Vélingara ay euh, douanier yu Sénégal jotalaale nag ak ay euh, doomi Guinée Bissau ba loolu nag juru musiba ndax kenn euh, jot na caa ñàkk bakkanam néewam sax ñu yóbbu woon ko ci hôpital bu Tamba autopsie ba nag noppi nañu ci dañ ci jokkoo ak Moussa Oumar gay mi ngi ci bu mu jokkoo bi Moussa Oumar Gueye nuyu naa la soxna Fatou Kiné Deme ñu ngi lay ni ma ko waxee léegi muy ak loolu nga xamante ni kon euh, xew na ca ñanaaw ñu jot ñu doon jot sax ne xëy na euh, buñ ci taxaw daal dana ëppi loxo fu yëf ya toll fi mu ne. waaw fi mu ne nii ci jamono ji ñuy wax léew Amadou Tidiane Balde moom daanaka pare na ci autopsie bi ba daal nañ koy yóbbu ci Medina Gounass ngir jullee ko ñu ne nag rab bi ñu ngi koy amal ca Sinthiang Samba nekk ci Guinée Bissau ci fàttali rek ci autopsie bi moom résultat yi dafa xamle ni Amadou Tidiane Balde bi nga xam ni mi ngi juddu ci atum 1970 am ñeent fukki at ak juróom-ñett ca Sinthiang Samba la juddoo moom nag li ko rey moom mooy ci externe daanaka daal li ñu naan artère fémorale bi moom mooy xam gën a fës ci poojub nit ci cuisse bi foofu noonu foofu la balu fetel bi daal di dal xeetu balu fetel bi soxe ci li ñu naan carabine calibre 12 autopsie bi nag ñi ko amal moom mooy docteur Sogo Milogo bu hôpital régional bu Tambacounda ak natangoom bu soxe woon ci benn centre de santé bu Pirada fële ci bi Bissau ñu koy wax docteur Julde Diallo loolu nag euh, soxe ci wàllaw xeex bi nga xam ni mën nañ ni am na niki démb diggante lenn ci ñi nga xam ne ñoom ñooy douanier ak lenn ci pèlerin yi xam ne dañu soxe waroon ñibbi fi nga xam ni moom mooy ci Guinée xanaa rek loolu itam nekk benn tomb boo xam ni day tax askan bi daal di gën a xippiwaat seen i gët lu jëm ci wàllu frontières yi nga xam ni saa ne lu jëm ci wàllu càcc jur gi lu jëm ci wàllu ni ñuy dogatee garab yi di koy dugal ak di koy génne ak leneen lu jëm tey ji lu jëm ci wàllu suñu économie réew nga xam ni les soldats de l'économie mooy douanier yi ñoo ci am euh, benn njombe daal seen digg ak ñi nga xam ni ñoom ñooy pèlerins yi wala passe avant boole leen leneen lu ñu mën a jàpp mooy ñaari nguur yi moo des ñoom ana yan pexe la lal ba jàmm jàmm daal di dellu si waaye itam ba tey gën a renforcer jàmm ak jokko ak euh, karange fi nga xam ni moo faree ci frontière Fatou Kiné Deme. Moussa Ouma. oui voilà avant ñuy tàggatoo Moussa Ouma beneen laaj rek mu jëm ci euh, laisser passer yooyu nga xamante ni euh, bari na lool luñ ci wax ay jafe-jafe foofu tamit xam naa nekk na fa ay jafe-jafe yu tar. waaw xam nga passe avant ak euh, ci wàllum oto souvent lañ koy saytu. Mhm. bu fekkente ni da nga dagg passe avant euh, ci li ñu fàttaliku da ngay toogaat fukki fan nag juróom yi nga indiwaat oto bi ci boppam ñu daggalaat la beneen a passe avant loolu nag am na ñoo xam ni. Mhm. xëy na day jafe ci ñoom ñuy taal seeni i oto fi ñu jóge war a dem ca subdivision douane ba fi mu nekk ngir ñu dagg seeni i passe avant léeg dañ koy bëgg def à distance léeg ñu tayal ko def ndaxte dugg génn bi dafa jafe waaye nag ci fàttali ci nguuru Macky li mu taxaw léegi mbiru passe yi dafa gën a euh, dëgër ndaxte gënoon na oyof mais léegi dafa gën a vraiment dañ ko gën a yoonal waaye itam ba tey leneen loo xam ne day am saa su ne ci wàllu frontière wax naa ko sànq ci biir euh, xibaar yi mooy lu jëm ci wàllub bant yi nga xam ne itam dafa fare ci frontière léeg ñu daggee ko ci réew mi ngir yóbbu ko ci beneen réew fekk ñi koy yóbbu ñi nekk fii ci Sénégal sax du ñàkk ñoo leen ciy jàppale ndax buñ ko yóbboo fële rek ci anam yu gën a gaaw danga ciy génne koppar bu takku loolu nag souvent day indi ay jafe ñu war ci mën a taxaw ci anam yu gën a gaaw euh, Gueye nga féete foofee ca diwaanu Tambacounda jaajafal nañ la bu baax a baax Moussa Omar Gueye ngay sunu naataango foofu eh, di ñu nag baaxee ay xibaar saa su ne ñu dem ba gànnaar foofu nag eh, njiitu réew mi eh, Macky Sall ni mu ko waxee woon ma nga foofee démb ba tey wara a nekk seq waxtaan ak nataangoom ba nekk foofee la ñuy waxtaan nag bokk na ci rek mbirum napp bi jafe-jafe yi nga xamante ni ñaari réew yi am nañ ko ci bu yàggul dara doom yi Sénégal ñu faat ko foofee def lu ni mel Mohamed Diop ca Mauritanie Mohamed nuyu naa la. Fatou Bintou euh, maa lay euh, fay. Mohamed ni ma ko waxee rek euh, njiitu réew bu Sénégal mi ngi gànnaar démb ba tey yegsi na teeru nañu ko ñuy xaar nag ay waxtaan yu am solo diggam ak njiitu réew bu Mauritanie. waaw ñuy xaar waxtaan yu am solo diggam ak njiitu réew mais dafa mel ni nag ñaari chef d'État yi ñoom dañoo bëgg pare ba yembal yépp balaa ñuy siiwal dara. moo tax euh, conférence de presse bi ñu waroon amal aéroport jotuñu kon def dañoo bàyyi woon jóge woon ci aéroport aussi defuñu benn déclaration mais tey jii nga xam ne Macky Sall dafa war a euh, ñibbi euh, ci ngoon euh, normalement bala ñoo pare dañ def dañ jano taskatu xibaar yi njort nañ ko daal xamaguñu heure bi ban heure lay doon exactement mais li ñu mën a jàpp mooy ne am na benn communiqué boo xam ne dañ ko signé ñoom ñaari réew yi te boobu ay xaatim yu bari dañ ko ci def ba noppi président bi itam war na janoo ko ñi nga xam ne ñooy sénégalais ne fii Mauritanie bu ñetti wax jotee maanaam 15 jaajëfal ko bu baax Mohamed Diop nga toogal foofee rajo Futurs Médias du ñàkk nag ñu jokkoo waat ak yow ci suñu yeneen jotaayu xibaar wax nga ko ñu ngi xaar nag ay waxtaan yu am solo ci diggante ñaari njiitu réew yooyu waaye dara siiwagul procès bu xalifa Sall ma ngay wéy boobee procès maire bu Ndakaaru nag mi ngi wéy moom itam di rek tudd ay tur yi mu ne nag ñooñee laale nañu ci caisse d'avance bi nga xamante ne nii moom la ñu koy tuumaal Khalifa Sall Cheikh Hassana ndax moo ñu toogal foofee ca euh, tribunal ñeel procès bu xalifa Sall ak ni ñu ko waxee woon euh, kon maire bu Ndakaaru mu ngay wéy rek di tudd ay tur kon Cheikh Hassana Fall yemb na Cheikh Euh, Cheikh Assane Fall bu dee mi ngi may dégg ma nga foofee ca tribunal euh, ci procès bu xalifa Sall ak ni ma ko waxee woon bu Ndakaaru nag di wéy kon di tudd ay tuur yi mu ne euh, laale nañu ci caisse d'avance bi nga xamante ne tey jii moo ko yóbbu foofu mu ne Cheikh Assane Fall du ñàkk ñu am ko balaa xibaar yi di jeex Cheikh Assane. Fatou Kiné. ma ngoog Cheikh Assane Fall nuyu naa la. fay naa la Fatou fu ñu toll tey ci procès bi tey lan moo fa gën a fës. yenn témoins yoo xam ne ñoom la woo ci baar bi mu ñu woowee ci droit témoin les témoins à charge témoins à yoo xam ne ñii di waa partie civile bu état bi ak bu euh, mairie bu Ndakaaru ñoom ñoo ko woo ak yenn yoo xam ne tribunal bi ñoo leen woo ci mu toll ci subaak léegi woo gum ci benn comptable Abdoulaye mu nekk comptable en la matière fële ne ci mairie bu Ndakaaru woo nañ ci tamit kii xam ne moo jiite GIE bi xam ne moom la ñu gën a Euh, takkal takkal takkal euh, ci wax turam ci biir procès bi muy GIE Sabara muy Ibrahima rek moom mi xam na ne xam nañu tey nañu euh, ba mu yore GIE beeg léegi yàgg na def loolu ëpp ñaar fukki at waaye musul signé benn facture wala mu jot xaalis boo xam ne jóge ci mairie Ndakaaru ñëw ci ci e, e boobu noonu avocat yi fawaat nañ ko ne ko suñu sukkandikoo ba léegi ci bi kayit yoo xam ne bind nañ ko ci Euh, mairie Ndakaaru jot na nañu ñoom lu tolloog milliards ak euh, huit cent huit cent million mu ne ñoom jotuñu benn dërëm boo xam ne na ci euh, xaalis xaalis boobu noonu te te Ibrahima Traoré dafa nekk mag ci Fatou Traoré moom xam ne bokk na ci ñu ñu ndax moom moo nekkoon secretaire général bu GIE Sabara moom moo doon joxe fiche entêté yoo yu am entêté wu GIE bi am na keneen ku fi jaar tamit koo xam ne moom tey euh, bañ ko woowee ci baar bi am na lu bëri loo xam ne wax na ko fi te mu andi ay ay ay leeraange ci biir euh, tribunal bi mu tudd euh, mu nekk maire Moussa Sy monsieur le maire Moussa Sy ñu xam na ne moom deuxième adjoint maire Ndakaaru la moom ba mu ñëwee wax nañu ne moom def na ci maire bi lu tollook ñetti maire fekk maanaam Mamadou Diop Pape Diop ak xalifa Sall mii nii ñu ñu téye tey nee moom moom fi nekkee léegi yàgg naa xam ne fond politique am na ñu gën ko laajaat wax ko ne ko li muy wax fan la ko teg mu ni ci biir euh, suñu jëlee ci législation yi suñu xoolee bu baax am na fenn foo xam ne bind nañ ko ci nomenclature bi muy wax lu ñu tuddee autre dépense noonu mën nañu wooyee ne foofu surtout la rek maanaam lépp loo xam ne dañ ko fa bëgg a génne comme dépense te xamuñu fan lañ ko war a mën a répertorier te nekkul ci nomenclature dañ koy jël dugal ko foofu noonu muy fàttali ne suñu mënee jël exemple bu gën a ndaw rek mooy 4 avril suñ koy def yenn saa yi di nga soxla yenn tapis rouge ak yeneen yoo xam ne dañ ko bëgg jënd doo xam fan lañ ko koy bind nee nañ foofu lañ koy dugal nee na visite Macron bi sax su fekkee mën nañ mën nañ ko joxe comme exemple nee na ba ba euh, lii ci partisan yeeg ñeneen ñoo xam ne jël nañ leen dugal leen ci ay oto ñoom seen jox leen ay t-shirt ak transport nee na ñooñu ñëpp ci fond politique bi la ñu bokk ndax tamit xaalis boo xam ne dañ koy jël nguur gi laajte ko ñu jox leen ko ñu mën ci jàppale population bi wala sax ay ay ay politiciens moom moom loolu nekk na loo xam ne gën naa gën na gën naa gën naa fës tey ba kii di maître Ousseynou Fall sax taxawaat ci ko laaj ne ko ci nii su fekkee ne loolu dafa am est que bon fonds politique yu ñuy wax ne mais euh, kii di président de la république Macky Sall da ko mës a jot mu toll ci cinquante millions euh, est-ce ñoom mën nañu ko justifier mu wax leen nee kii di président de la république ak yeneen institution yu nekk ci réew mi mais assemblée ak yeneen ñoom fonds politique yi ñoo ngi ciy jot chaque année ñu am ko amuñu benn lu ko justifié te aussi amul lenn lu ko bind ci biir ci benn loi buñ ko bind muy wane ne tey daal euh, instant yi nii ñoo ngi ci biir fonds bi en tant que tel euh, ba may génn léegi ci salle bi sax woo ancien maire de la ville de Dakar Mamadou Diouf à la base mu nekk ñu koy jaajëf bu baax Cheikh Assane Fall ñu doon doog jokkook yow foofee ca euh, tribunal gannaaw nag la woon euh, ci àllub Boffa Bayotte bi euh, l'armée bi mi ngi wéy nag di amal ay opération jëmale ko rek ci ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy def naka sudul noon di yori ngànnaay waruñu koo yor loolu nag ci bëj saalumu réew mi la ñu ne sax am na ay base yoo xamante ne nii ay base rebelle la arme bi nag teg na ci loxo boole ko nag ay jumtukaay yu takkoo takku Mame Birame lañ ci àndal ak euh, nataal yi tukkee ci diir ba gannaaw xew-xew yu métti yi amoon ca boro fay baynuk nga xam ni lu tollu ci fukk ndaw ak juróom ñàkkoon nañ seen bakkan armée bi nag taxaw ànd ak professionnalisme lépp ngir jàmm delloosi ko ci diwaan googe moo am kon ab opération gu mag goo xam ne ni def na ko ci ñaar fukk fan ak juróom ci diir waaye nettoyé zone googe nga xam ni kon jëm na ci Toubacouta Babonda Baxaka Mandioka Niafena opération bi nag ñu ngi ko jeexal ca Binjalum Baniouk ba ñu amal boobu nag am na ay sambabo yoo xam xam ni kon taxawoon nañ ngir jéem a jàkkaarloog ñoom ca Gidel ak Baba Dinka eh, jëm ca sancaba ba ñuy jug kon di dem eh, ci ab bërëb goo xam ne ni mooy Binjalum gannaaw ay information renseignement yoo xam ni kon jot nañu ko ne am na ay base band armée yu fa nekk armée bi ci taxawaayam lépp nag jëfandikoo ay pexe yoo xam ne ni tax na kon ba ñu am ndam eh, ci kaw rebelle yooye ñi sax nga xam ni kon jot nañu sax faat ay bakkan ci seen yoon googu armée bi ba mu tegee loxo nag diwaan gi di Binjalum Majak tax na kon ba ñu ràññee rek ni am na ay base rebelle yoo xam ne ni ñu ngi fa ak yeneen bunkers yoo xam ne ni daal ñoom rebelle yi tegoon nañ ca loxo waaye base yooyu armée bi lépp la yàq rebelle yi nag ba ñu jógee di daw bàyyi nañ kon ca bërëb yooyee ay ngànnaay yu bëri bokk na ci ay munitions ay grenades ak ay mines piégées ay garab ak yeneen matériel yoo xam ne daal yore nañu ko armée bi it teg na fa loxo ñett toolu yàmbaay yoo xam ne ni moom la rebelle yoroon lépp di def seeni ñawteef ci diwaan yooyu Euh, ma ngoog euh, ni ñu ko waxee woon léegi ci euh, ponk yi muy nag doxub ñaxtu bu yaatu bi nga xamante ne nii jàpp nañu ko amal ñoom tey ñi fare ci kujjeg politique gi daal di man ko nag defub say tëral kuréel duppee ko nag initiative des élections démocratiques bu ñu ko déggee muy nag kuréel goo xamante ne dafa taxaw rek ngir ñu amal ay wote yu jaar yoon fii ci Sénégal doxub ñaxtu bi tey ci ngoon la ñu daal di ko rek ak Mamadou Diop Decroix moom moomee nag bokk ca googee kuréel Mamadou Diop Decroix nuyu naa la. waaw maa ngi lay fay soxna si. Mangook ni ma ko waxee tey jii nag ngeen fas yéene rek amal doxub ñaxtu bu am solo ne ngeen mu soxal nag ay wote yu jaar yoon ngeen bëgg ñu amal ko fii ci euh, Sénégal ndax mën nga dellusiwaat rek ci solo maanaam doxub ñaxtu boobu. maa ngi lay gërëm bu baax di nuyu ñi leen di seetaan ci télévision bi euh, waaw doxub ñaxtu bi day leen rek ko yëkkati. am na sax lu ciy tegu waaye nag leen nag ko yëkkati mooy fexe ba daal réew mi li fi xewoon ci weeru juillet nu génn ci bi ñuy wote député yi daal bañ fe bañ a amati maa mu doon uh, wote yii di ñëw ñu wote ko ci jàmm ak salaam ci anam yu leer yoo xam ne la cay tukkee kenn du ko nattable lii daal lañu bëgg ndax jàpp nañu ne loolu mooy jur jàmm ci réew mi dama koy faral di wax saa su ne bu jëkkoon am réew balak puudara ko daan joxe da tojum réew ñii daw ñii dee ña fa des nga yilif leen léegi nag bu dimanche da solu dem wote ji bu jant soye ñu waññi ku ëpple toog loolu moo ëpp yërmande ah loolu yi nag waxtaan yi nga xam ne moo war a am ngir nu jël matukaay yi ci war ba wote yi tegu ci yoon ah nguur gi daal defagu ko Macky sàll ci boppam taxawawu taxawagul taxawaay boobu loolu nag moo tax nu bëgg Euh, euh, euh, dox doxub ñaxtu bi di ci woo ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ndax dafa nañ ne wote bu aw yoon boo xam ne bu bët setee ku ne dellu ci say soxla loolu ñëpp ñëpp ñëpp la soxal ñi ñi ñi ànd ak Macky Sall sax soxal na leen ñëpp la soxal kon yaakaar naa ne wote boo woote boobu daal ku ne war nga cee mën a ñëw ndax itam nangu nañ ko du am ay grenade du am dara jàmm ak doxub jàmm ak salaam la woo nañ ci ñëpp daal. Euh, ñu koy ah, li man li man uh-huh. ci bëggoon a yokk itam. waaw mooy xam ngeen ne jamono bi réew mi foo foo foo làmb ma ngay metti uh-huh. gis nga démb jàngalekat yaa ngi euh, euh, dox doxub ñaxtu. Uh-huh. bërki démb dawalkati taxi yi ñoo doon dox doxub ñaxtu. xam nga ci àll bi itam gaa ñi bay nañu gerte gi amuñu fu ñu ko jaayee. ñooñu ñëpp nag woo nañ leen ndax ñoom it dañoo am lu ñuy ñaxtu rawatina nag jeunes yi nga xam ne. Mhm. amuñu ñoom liggéey far. Mhm. waaw voilà balaa balaa ñu balaa balaa ma lay bàyyi euh, ci wàllug kaaraange gi également lan ngeen di ñaax ñi nga xamante ne nii euh, ñoom ngeen woote ñoom ngeen woo ci doxub ñaxtu boobu ndax xam naa ni tamit xëy na bëgg ngeen daal lépp ñu amal ko cib dal. ndax doxum ñaxtu bii lu metti metti nangul nañ leen ko. dina dina dina nu leen wax ne na lépp aw ci dal nañ ko def lépp ci dal. Mhm. waaye ma ma fàttali la ne mësuñu fee def euh, euh, marche autorisé moo boo xam ne euh, ñi yor nguur gi nangu nañu ko ba mu jur jëye mësuta am mhm. xanaa kay mhm. marche bu ñu ne dañu koy def ñoom ñu ne du fi amee loola moom mën naa jur jëye waaye marche normal moom du jur jëye ngoog ñu koy jaajëfal bu baax Mamadou Diop Decroix ci fàttali kuréel googu nga xamante ne nag kon euh, ku jég politique gi samp na ko ngir nag ay wote yu jaar yoon fii ci Sénégal ñoo fas yéene rek amal tey si ngoon ab doxub ñaxtu bu yaatu fii ci euh, Ndakaaru ñu wax ci wàllu njàng mi ak euh, njàngale mi fële ca école Jàmmalaay ñu ne nag moom moo jël raw gàddu gi ci juróom-benneelu édition bu seen petit génie waaye ci kaw loolu nag jàpp leen ni kon daara jooje daloo na ab salle informatique politique euh, bu bees mu nekk loo xamante ni lu am solo la ña nga xamante ne nag ñoom ñoo liggéey ba loolee sotti euh, la leen ci xaw a metti rek mooy nag léeg-léeg euh, li ñu de li ñu desee amal te muy nag gunge yëf yooye ba mu yemb Cheikh Tidiane Diaw lañ ci àndal ak image yu Pense Art askanu jàmmalaay joxante ndaje ca école quartier bi ngir inauguration salle informatique euh, muy firnde seen ndam ci jongante seen petit génie ci juróom-benneelu édition bi. ñu leen di bu baax le personnel éducatif le personnel l' mais di félicité aussi le conseil le comité de gestion de l' établissement seen taxawaay rafet na. seen petit génie di émission bu yëngu ci wàllu jàng. ñu nekk ci ginnaaw di naqarlu ñàkk jàppale bi ci war. seen petit génie dafa nekk émission boo xam ne ni que ni pour man moom rek moom moo nekk émission boo xam ne ni dañ ko lancé depuis six ans pour euh, pour euh, pour euh, élèves yu CM CM1 donc émission bi aussi mu nekk émission boo xam ne ni que ni c' est très difficile pour ñu trouver ay ay soutien yoo xam ne ni que ni venant de l' état venant de aussi également des sponsors pour que ndimbal yi ñuy joxe après la suite de euh, l'émission pour école gagnante bi wala même école yi nga xam ne dañu participer si si euh, si édition yi gën leen di mën a di leen gën a mën a satisfaire. ndaw li toogal ministère de l'éducation ne doléances yi dina ko jottali fa ñu ko war a je transmettrai donc euh, vos doléances madame Ngoné représentant COSYDEP à monsieur le DRH et éventuellement à monsieur le ministre parce que ce sont des initiatives à encourager. école Diamalaye. am na bés ni ki tey salle informatique élèves yi bég ci lool ñu daal di nag dellu wax doxu ñaxtu bi nga xamante ne démb syndicat jàngalekat yi amal ñu ko ca diwaanu Kaffrine mu nekk nag doxub ñaxtu boo xamante ni ñoom syndicaliste yooye ña ngay sàkku rek ci nguurug Sénégal mu daal di nag sàmm li mu euh, xaatim ndax euh, metti na ay at a ngi nii euh, ñu koy xeex te ba nëgë ni nag kon saafara amagul ci yooye jafe-jafe SAEMS CUSEMS CELS UDEN ak yeneen ni kon syndicaliste ñoom ñoo joxante loxo foofe am na nag ab mémorandum boo xamante ne nii bu euh, diwaan ba ñu teewlu ci Wandifa Mané euh, moo wax ci seen tur ci micro Ibrahima Diamé. tey dañoo ñëwoon dox suñuy doxu ñaxtu. conformément a li nga xamante ni moom moo ñu tax a jóg ndax syndicat d'enseignants yi dañoo signé woon ay accord ak le gouvernement du Sénégal gouvernement du Sénégal boobu par le biais du ministre du travail de l'époque monsieur Mansour Sy génn wax ni voici des accords réalistes et réalisables mooy li nga xamante lu mën a nekk la war a mën a nekk te yaakaar naa loolu nekkoon warul jafe bu fekkente ni amoon na volonté politique li muy wane rek mooy ñun enseignants yi ay baayoo lañu mooy ñi nga xamante ni amuñu ndey amuñu baay sóoraale ndax wala buñ ñuy sóoraale it ay butit lañ ñuy jox jël yàpp bi jox ko ñeneen ñi nga xamante ni gënuñu koo mérité te loolu noonu nag dafa li nga xamante ni dafa war a doy te dafa war a dagg ba kanam nag borom moo koy fajal nous avons pris nos responsabilités jël nañ ko ba mu sëkk luñ ci góobe rek ñu gar ko te xam ni xeex mooy libéré comme ni ko Karl Marx doon waxee te boobu léegi ci xeex la ñu nekk te lu ñuy laaj nekkul ay faveur ay droit la ndax ay accord buñ ko signé li ci des moo sottil ko réaliser ko te yaakaar naa loolu moo waraloon tey ñu ñëw fii nii ñaxtu comme yenn fi yenn la fi ngeen représenté au niveau régional nguur googu noonu kon suñu amee lu ñuy mën ko yeggee ñi nga xamante ni mooy les autorités Bambilor nag tàngoon na lool ca ba ñuy wote rek euh, budget bu euh, mairie ba ndax euh, nee nañ ay conseil yoo xamante ne nii dañoo jege lool kii di jëriñ ji di Oumar Gueye ñoom nag ñoo bëggoon rek kon indi jafe-jafe ca wote yooyee waaye nag lu ëpp kon ca élu yooyee mujj nañoo kon wote budget ba nga xamante ne moom la ñu jagleel mairie ba maire ba nag ca jëmmi boppam moom rafetlu na ko bu baax a baax nee na ndax liggéey bi koy xaar dafa am solo te mbébétam nag mooy fexe rek ba gën yokk ñaari milliards euh, fii atum 2021 Ousseynou Thiam Bira Diagne lu jëm ci ay xiroog ngaayoon nag jëm ci wàllu li parti bii di APR moo tax nag ba ay lenn ci ay conseillers yoo xam ni ay jegeñaale lañ ministre bii di Omar Gueye ñoom ñoo fexewoon nag bëgg a lii di vote de budget bu commune de Bambilor coow lu metti ni nag moo ci topp gannaaw sax tentative de blocage boobu terewul nag la pëcc conseillers yi nag voté budget boobu nga xam ne nii maire bi jàpp na ne lii di budget bu réaliste la. tax budget bi tey ñu voté ko euh, mooy dañu gis ne dafa ëmb bëgg-bëggu askan wi te ci bëgg-bëggu askan yi ci la ñuy dox ci la ñuy wax. sunu yéene mooy d'ici deux la commune de Bambilor au plus tard 2021 nous aurons un budget de 2 000 de 2 milliards loolu mooy suñu yéene te loolu mooy suñu bëgg-bëgg ko conditions yi dinañ ko mettre sur pied ba incha dinañ fa àgg je pense que tey ku may wax bul ma wax wax ma lan moo war a mën a jëmale Bambilor kanam mais luy reculer Bambilor gannaaw ñun gisuñu loolu suñuy recette lii mu ngi jóge si taxe de bornage yi li ci des ci patente li ci des ci ODP bi occupation domaine public bi li ci des taxe sur la publicité. ca geneen wàll mu ne budget boobu nag bëgg na koo yóbbu fii ñaari milliards fii atum deux mille vingt et nee na nag ngir gën a mën a taxawu li di bëgg-bëggu askanu Bambilor. ñu daal di nag àddu ci leneen muy nag njaayum soble mi soble mi nga xamante ne nag fii lañu koy bayee ci biir réew mi ndax li nga xamante ni kon moom mooy saison boobee ñu jàpp nag ci njeexitalu weeru janvier bi daal li nga xamante ni kon moom mooy soble euh, mbay mi waroon nañ koo jaay bu baax a baax fii ci euh, suñum réew fële marché gueule ci euh, seetlu nag mooy njëg ba daal daal nay yokk muy nag soble kon local boobe ndax ne nañ jóge na ci juróom-ñett junni ak juróom-ñetti téeméer dem ba ci fukki junni ak juróom-ñeenti eh, téeméer eh, commerçant yi nga xamante ne nag ñoom ñoo fa nekk ñoom lañuy sàkku rek mooy soble bi nga xamante ne ni dañ koy jéggaani la ñu ca jot am kas néew ñu fexe rek eh, ba jaay ko na mu gën a gaawee bu fekkente ne nag bëgg nañu kon soble mbay mi gën a jar ci marché bi dañ ci ànd ak Salif Sow Asmalik Diop. L'oignon local se fait désirer ici. Au marché Gueule Tapée de Guédiawaye, seul l'oignon importé est visible sur les étalages. La demande est forte. le prix du sac a connu une importante hausse du coût. Nous sommes ma ngoog ñuy jéggalu kon ca boobe élément ndax rek euh, wolof bi lanu doon xaar du ñàkk xëy na euh, ñu am ko ci suñu yeneen jotaayu xibaar ñu wax nag ci kër gi nga xamante ni moom mooy toppatoo ak saytu lépp lu soxal jaww ji di joxe ay xibaar rawatina ak ña war a dem ca géej ga ak it bu fekkee coppite am na ci wàllug jaww ji ñoom ñoo ci euh, addu ñoom nag fi mu ne taxaw nañu rek ngir tàggat taskatu xabaar yi ñu gën a xame nag bu ñuy joxee xibaar ci wàllu jaww ji nan lañ ko war a joxe loolee mooy mooy solo si lël bi nag diiru ko ñaari fan kon la ñu ko amal ñu teew lu ci docteur Ousmane Ndiaye moom mooy Ousmane Ndiaye bu ANACIM ci mun a Ndiaye liggéeyee mooy comme ay techniciens dañuy essayer def am ay jumtuwaay ñu utiliser ba mënee xayma bu baax a baax a baax fu jaww ji toll ak nan la jaww ji mën a nekk suba ak ginnaaw suba essayer ko mën a jox koo xam ne mooy journalistes yi nga ñu ne woon euh, li gënoon mooy ak ñoom sottante xalaat bu baax ba ñoom bu ñu mënee jël bataaxal ci ñun xam ne nañ ko mën a jàllale ni mu gën a rafete lu mën a mën a gaaw egg ci mbirum ñi nga xam ñoo ko soxla ab projet bu bees la projet boo xamante ne nag euh, kër gii di euh, Expresso moom nag moo ko daal di euh, tëral mi ngi ko duppee nag Expresso innovation challenge bu ñu ko déggee nag projet bi dafay rek daal di kon sargal ndaw boo xamante ne nag nag gën nañu ko ràññee ci ay projet loolu nag mooy solos kon li nga xamante ne nag moom mooy kon boobee projet waaye nag jàpp leen ni ci discipline bu mu mën a doon lay doon ñu teewlu ci Mademba Diouf moom mooy directeur des opérations Sénégal. benn bureau la maanaam bi nga xam ne euh, xale yi les jeunes du Sénégal en général mun nañ fi ñëw bu ñu amee xalaat walla idée bu innovant mun nañ ko indi fii partager ko ak ñun euh, te idée boobu du doon idée technologique kese mun na nekk agriculture mun na doon pêche mun na doon industrie. mun na doon secteur d'activité euh, n'importe quel secteur d'activité léegi bu indee foofu xalaat bi idée bu bees bi ñun nañ koy accompagner ànd ak moom ci réalisation bi ànd ak moom ci utum investisseur ak muy def ba développer idée bi mu mu doon entreprise bi nga xam ne dina mën a jur ay liggéey ak jur euh, li ñuy wax bénéfice. juróom semaine bu nekk dinañ am benn ku ñu ku ñu incubé ku bees. li ci yéene kaay yi Mamadou Mohamed Ndiaye lañ ciy àndal. sira ngeen jëf ñanaawoo ga ca frontière bu Sénégal ak Guinée Bissau musiba mbamba kumba am na fa démb bi le quotidien ay doomi Guinée Bissau yu jóge woon Guinée Bissau doon dem ca siyaara bu Thierno Amadou Baldé ca Médina Gounass ñoo doon jàppanteeg douane bu Sénégal ca frontière ba gaa ñi yegsi ca frontière ba douane bi ne leen bala ngeen di dugg da di joxe passe avant mu di këyit wuy jar juróomi téeméer gaa ñi ne duñ ko fay coow a fital ci kaw gaa ñi daw song ko doon ba rëcc ci am kenn ku mu dal ci ñoom ba mu faatu yéenekaay bi nañu am na ñeneen ñu ci jëlee gaañu-gaañu ci ñooñee ñett ca ñoom seeni gaañu-gaañu miti gu mu miti tax na dañ leen a mujj rawale ci hôpital régional bu Tambacounda am na it ay wata yu bari yoo xam ne ay transporteur Sénégal ñoo leen moom ñu gaare woon leen ca frontière ba dañu leen a yàq ba ñu yàqu yaxeet Le Quotidien nañu li am démb ci frontière ba ci yor yor gi moo di feu sans frontière réew mi Quotidien nañu li faatu ca jàppante ba romb na benn doomu aadama ñaari doomi aadama ñoo ca Mohamed Ould Abdel Aziz ñu lalal leen tapis rouge ñu cay dox doxinu fashion ay alkaati dar leen bi moo nekk ci xët mu njëkk soleil national yéen a bi nañu a ñaari réew yi li ñuy moo di apaisement maanaam ak dal nañu dali ci la la Tribune mi xëy dali ci layob caisse d'avance bu mairie bu ndakaaru yéenekaay bi nañu coow li état bu Sénégal mucc ci koppar yu ump ko woon ndax état bi boole woon na ko ci nomenclature budgétaire am ba bindoon ko ci journal officiel bi awokaay Khalifa Sall ñoo ko junj ci audience ba démb ca tribunal ba Walf Fadjri nañu tribunal jaxoon na démb ndax awokaay ñoom Khalifa Sall ñoo fa doon sermoné sus président Malick Lamotte maître Ousseynou Fall maître Ndeye Fatou Touré nañu li ñu war du yow yaa ñuy wax li ñu war a def ak dañu watal yoon yu ñu war a jaar tojoo fu bari monsieur le sus sab carrière guddul vox populi nañu kees d'avance baa ngay bëgg a bari mbooloo ne ci fukki fan ak benn ci layo bi la ñu toll waaye Khalifa Sall dugal na Abdou Mbow ci kees d'avance bi Idrissa Seck dugal na ca Macky Sall ci xët mu njëkk journal bi Idrissa Seck nañu fa magistrat yi dañoo war a woolu Macky Sall mu wax leen lu mu ak nu mu laale ci kees d'avance bi ndax dégg nañu Khalifa Sall mu ne Macky Sall laal na ci na Macky dem tribunal wax ndax laal na ci am laalu ci xale wi ñuy jaabaajonge ca tribunal ba di wax naan ñam na ci koppari caisse d'avance beeg ñamu ci Idrissa Seck nee na Macky Sall na dem tribunal leeral li ñu koy waxal premier ministre bu Sénégal di Mahammed Ibn Abdallah Dionne Idrissa Seck wax na ko lu jar xar suuf si dugg ci yii di nee na Boun Abdallah bandal la fu ñu ko jëmale rek mu jëm fa bu ko président ne woon demal toog ci télé bi ne jant bi sud lay fanke mu def ko xaayaan ku dégg séeréer la wala fax séeréer bi di Pape Songe Diouf xëy na song ak doole journal direct info honorable député Pape Songe Diouf maire bu ngay xox xëy na di sàkku ci gaa ñi mu bokkal mouvance présidentielle bi ñu ànd akuk dal gën a booloo boole seen doole te xam ne ñoo ngi jëm ci élection mu di présidentielle yi 2019 yi te du ay élection yi caaxaan Pape Songene bu ñu booloo mbindeef mënuñu fee jëlee kenn ñu dara te lu ñu song dañu koy daan waaye bu ñu féewaloo tasaaroo du baax ci ñoom gaa yi APR yiy jóg di song directeur de cabinet bu président di maître Oumar Youm Pape Songe Diouf ne fa ñu joxoñ du foofa gaa ñi dañoo juum bilan bi ñu def ci bopp réewum Sénégal mu ne lu neex a défendre la ndax président Macky Sall lu rëy te rafet la liggéey ci réew mi réew mii di Sénégal source a nee nañu ñoo ngi fii séentu ñeenti téeméeri wat ay bus ay bus yu seen wàlla waaye yéenekaay bi nee nañu projet boobee bari na kumpa yu ci am kenn tane wula ci nan lañ koy doxalee la Sénégal nañu réewum Chine caaxaanewul partenariat économique mu di jëflante ci wàllu koom gi dox diggam ak Sénégal réewum Chine dugal na ci Sénégal téeméeri milliards ak ñeent juróomi max amical Sénégal dina ko football ngir waajal coupe du monde Russie 2018 xibaar baa nga ci xët mu njëkk stade yéenekaay mu di xibaar bu mu nangoo ci Boun Daouda Diop stade tegal ñu ci ne ji jii di ñëw dinañu xam lu wér péng ci programme gaynde yi jaajëfal ko bu baax ma Mamadou Mohamed Ndiaye yéen it sant nañu leen gërëm leen rédaction bi dig na leen daje ci yeneen jotaay xibaar ñu leen di ñaanal kenn dal jàmm te di ko sàkku ci yéen